ci jamono yii ci ginnaaw ñu ñëw waa gaaru ceer bi di ñu daggal ay amende yoo xam te nii dafa dem ba jéggi dayo muy amende yoo xam te nii da koy dagg à quinze mille francs par semaine te amende yi ñun xamuñu fan la tegu yàgg nañ ñu koo daggal nag waaye ñun xamuñu fu ñu fu mu tegu waaw moo taxoon ñu doon woote pour wax ni amende yooyu ñun désormais du bëggatuñ koo dagg ndax bu ñu sañoon lu ñuy dagg dafay dem dans les queste de l'État. ñu ñun on transport irrégulier transport irrégulier nag loolu état moom moo am pour pour pour pour xeex ko te jàpp nañ ni euh, dem nañ ba nga xamante ni nii euh, mbir mi law na fépp ci Sénégal. ak ñu ngi di demander l'État du Sénégal bu bees bi euh, en l'occurrence le président son excellence le président Bassirou Diomaye fay ak sunu ministre du tutelle El Malick Ndiaye ñu gëstuñu ñu wooñu ñu toog ñu waxtaan ñu mën a xool. lii naka la ñuy def ba régulariser ko naka la ñuy def ba ba organiser ko.